Ah, ñu daal di tàbbi kon ci jotaay wax sax xalaat ak ponk yi ñu jukki bokk na ci nag la xew ca Tchad ak njàngat yi ñu ci man rek euh, def euh, benn ponk la ci beneen bi mooy wàllu xale yi taalibe yi ak euh, daara yi gannaaw bés bañ leen daal di nag jagleel bi ci mujj mooy Covid bi ak rumu yi am ci wàllu nag santé 88 628 98 80 allo. waaw allo salaamaaleykum. Adama na nga yendoo. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah maam Mor waa. maa siyaare bu baax ci koor gi siyaare sama ñetti oustaz foofu di leen ñaanal gudd fan ak wér sañ laaj jaxate ca Touba di ko ñaanal gudd li am càdd nag moom nit ñëpp ko métti lu parce que nit moom bu génnee àdduna nag nit ñi dañ koy métti lu mais président yi nii yàgg ci nguur gi dafa garaaw daal ay juróom-benni mandat. Hmm. xam nga loolu dafa métti daal. loolu moom dañ ko war di moytu parce que boo amee ay ay mandat yu bari yooyu nit ñi dañuy dem ba ñenn ñi du du leen neex kon yooyu lu jar a éviter la. Hmm. waaw métti métti loolu nañ ko lool nag parce que bakkan moom bu fi jógee rek waaye yooyu yëpp nag ñi nga xam ne dañuy jiite réew yi dañ ko war di sóoraale daal fexe ba buñ toogee seen diir bu ñu war rek ñu dem ab la nga xam ne àdduna moom dara du ci doy waaw ba dara du doy nag loolu loo ca am doy na hmm. waaw bu loolu jàllee nag mbirum ndox mi moom wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañ lool. manque manque bi métti na ba métti yaay foo ko takk weesu na ko surtout dox gox bu mel ni Touba. am na ci gox yoo xam ne si ndox moom bañ ko gëj am ak léegi kenn xamul kañ la. kon boog ku leen ci dimbali ci koor gi daal daal daañu ko jël sëñ bi mujj na ci jaaxle ba dafa tàllal loxo laaj laaj laaj ka maire Touba bi na ko jàppale ma ci ndox mi surtout forage bi nga xam ne moo nekk baax daal di servir lu bari ba mu gëjee baax dafa yàgg daal pompe yi defoon Touba ca kanam ay jàmbaarañ defoon nañ ci ay pompe mais pompe yi xam naa ne ni mu waroon a demee déwénu ci qualité ba tax na ci bari dafa yàqu kon boobu loolu lu jar a jugaat la ndax it koor gi Touba tàng na tàngoor woo xam ne ndox daal. Hmm. dañ leen jàppale ak yeneen gox yu mel ne Dakar Grand Yoff gi ma dëkk hmm. ndox mi war na ci xar tànk tooyam di ci wax dalal xelu nit ñi wax leen lu ñu mën a def ba am ndox même bu ñu génnee ay robinet ci mbedd mi sax ñu def hmm. parce que it moom lañ ko dénk mais doo dégg mu àddu ci mel lañ ko dénkoon da ko ñor la dénkee ci wax di ci def comme ñeneen ministres yi ni ñuy def di wax ci seen mbir di ca dox dem ca rajo yi di leeral askan wi parce que askan wi xamuñu dara ci mbir mi il faut nga di leen leeral yow lañu ko dénk na ko xool natt ngoom ngi ca rajo yi mu ngi leeral football beeg basket beeg li mbir mu demee buñ la dénkee dara ka ko bëgg mu jëm ca kanam il faut ngay wax ci liñ la dénk lu mu doon askan wi di la dégg xam fu ñuy teg seen tànk loolu moo baax loolu la président bëgg le président séddale na cër yëpp comme sédd sa cër nag da ko war a doxal ni nga ko war a doxal ñu ngi ñaanal ñëpp koor jàmm yàlla na jafe-jafe yëpp wàññi ko président man lépp def na merci beaucoup. Euh, mu nga ko euh, Pape kon ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi biir réew mi ak euh, bitim réew bitim réew 33 la 841 22 33 allo. ko justify ku sàggana fay bi dante loolu dalu laay loolu mi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw yaa Oustaz ñoo ngi lay nuyu di la siyaare waay. ñu ngi nga bokkal liggéey bi ñëpp. jërëjëf waay. di la ñaanal jàmm ak salaam xéewal yu bëri yal na yàlla defal leen ko defal ko mboolem jullit. ok yal na ko yàlla jëlee. ok amiin. Ah, li ma njëkk a wax mooy affaire ndox mi. Mhm. Ah, président ministère bi bu dee pour liggéeyam président ci boppam moo war a génn wax. Mhm. mais génn noppi gi dafa ëpp. ak yéex a wax gi ëpp na. war nañoo jël ay leçon ci yu bëree bëree bëri li koy waral mooy yéex a wax ak noppi moo koy waral. lu jir njaaga président mooy njaag fi mu ne réew mi ci boppam su su su doxee ci yoon hmm. président bi nañ naan liggéeyam la bu doxul ci yoon dañ naan président bi la ministère yi bu ñu leen dénkee doxalu seen liggéey nañ leen fi jëlee kuñ jox kuñ jox liggéey doxaloo ko askan gi kontaan nañ ci yow nañ leen fi jëlee li ay war te ñii ñu jox ndox mi ndox mi liñ ko jëlee ci seen loxo joxaat ko ñeneen bu fekkee mënuñu seen liggéey nañ ko jël nunguwaat ko nunguwaat ko amul tey ëllëg si biir ngoon nañ leen fi jëlee jox keneen affaire ndox du caaxaan buñ taxawee fii naan euh, euh, Sénégal xaw ma énergie xaw a yu demee noonu ban réew moom mën a naat mën a nekk énergie te du ah, am na ndox mu doy ak sécurité bu doy ak yeneen ak yeneen mais ñii jigéen ñi sonn nañ de war nañ leen a yërëm lillahi wa rasul war nañ leen a yërëm président moo war a génn wax xoolaat affaire yi bàyyi ceelaar bi nopp gi ak yéex gi métti na métti mm. na waaw dañ leen a war a yërëm jigéen ñi parce que ndox mi wax dëgg yàlla moom am na problème toujours ñuy toujours ñuy coow ku nekk di di di wax ndox mi ndox mi ndox mi ndox ndox mooy nit. nit nit ndox mooy nit ndox bu amul sa sa ñi xaw ko jox buñ mënul affaire yi nañ ko nungu ci ñoom carrément jox ko keneen amul tey ëllëg si biir ngoon amul ministère bi bu mënoo def liggéeyam nañ ko fi jëlee jox ko keneen ñi fi jàng bari nañ ñi fi xarañ bëri nañ ñi fi mën liggéey bi mën bari nañ. waaw loolu rek la affaire bi to nekk amul leneen nag ay négocier ak yooyu amu ci. waaw ah, loolu daal moom dëgg-dëgg man wax dëgg yàlla bëggoon naa président bi daal mu taxaw ci daal. Mhm. di génn daal dëgg dëgg dëgg dëgg nag moom faj faj coono jigéen ñi. Mhm. sonn nañ de sonn nañ trop. Mhm. waaw ndox mooy lépp jërëjëf. merci beaucoup. waaw Pape Laye mbokk moomu loolu di jàngatam ah, ci yow bi le ponk ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi ba tey ci 88 628. 98 98 keneen allo. alo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waa sëñ Ndiol na ngeen def. waa ñu ngi fi. waaw alhamdulilah Aliou Diouf. waaw ñu ngi lay nuyu Aliou. bon bëggoon wax ci affaire Idriss Déby bi quoi. waaw. bon affaire bi. Euh, c'était le mandat le sixième mandat. c'était le mandat de plus. qui a fait déborder le vase. président yi war am njàngat. ci affaire yooyu bon man euh, bu mel ni Sénégal nag troisième mandat bi tam mën na nekk le mandat de plus on ne jamais moo tax bi yoon Macky Sall damay wax moom en tant que en tant que frère waaw moom nox na na jàngaat xam ne moom lu mu doon bañ démb waru ko nangu tey moom moo fi doon xeex troisième mandat na fexe ba lu mu koy digal mooy xaritu démbam yi fu mu jaaroon yëpp ci àdduna na xool ñi nga xam ne ñoo gënoon franc mu xëcc leen seen wet di waxtaan ak ñoom parce que les opportunistes ñi koy wër toujours lu ko neex lañ koy wax ak loo xam ne bu duggee si guute dañuy daw bàyyi ko waaw dañuy daw bàyyi ko rek dictateur mosuma gis man dictateur bu mujj fu neex waaw na na def démocratie indi ci waat xelam te doxal yoon yàlla jàppale ko waaw de bon foi ngay def lu baax de bonne foi bañ bi def ay calcul def rek lu baax te yàlla tax yàlla dalay lay jàppale billaahi na bàyyi calcul yi te doxal yoon rek waaw lii yëpp du ko ci fekk waaw dictature baaxul waxoon na ko taayalee amul kenn ku fi nekk dictateur ba mujj fu neex amul waaw jërëjëf di leen di leen gërëm. waaw mbokk moomu wootee bitim réew jaajëfal ko xaarati kenn ku ko wutu ci ligne bi ñu jël ko Pape Lay ñu wéy ci jotaayu wax sa xalaat 88 vingt allo. allo asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. lay ziar Pa Ndiaye bu Ousmane Sonko Zac Mbao. ñu ngi lay nuyu waa sëñ bi Ndiaye. ñu ngi ziar askan yëpp. di leen baalu ak di naan yàlla yàlla nangul ñu koor gi. waaw sotti xéwal yu bëree bëri ci réew mi. Mhm. ki fi nekk moom li wér te mooy def na vingt trois ans au pouvoir boo na c'est limite il a fait douze ans ak maître Wade. huit ans au pouvoir ça fait vingt trois vingt ans plus les trois ans yi nga xam ne entamé na ko muy waaj a jeex muy vingt trois ans au pouvoir seeni limite indépendance ba tey wan nañ ko Dakar ku mënul fexe ba rek la ndoxam indépendance ba tey même fii Tivaouane Pël gii sax ndox amu fa donc réew mi fi mu nekk ni askan wi moo toll foo xam ni daf ko bëgg a récupérer ñun Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la ñu àndal su juróon réew mi tey def fi cinq ans yu yées li fi Macky Sall def ñun ñooy jóg contre yi ndax réew mee ñu ko gënal mais dañoo am yaakaar ci moom ci redresser réew mi réew mi nag toll na fu nga xam ni askan wi moo koy jëlal boppam mu neex mu naqar yi loolu moom li fi xewoon indépendance ba tey ay golo di béy baabu di dundee askan yi gën a sonn gën a feebar duñu faju ndox amu fi courant loolu c'est terminé deux mille vingt quatre la ñu xaar c' est le moment irréversible boo xam ne réew mi dina jëlaat mbiram Sénégal mën na mel na Dubaï mën na dàq États-Unis li fi am ci sunu sous-sol da ngay jóg jël train léegi dem Kidira électrique jóge fa ñëw gont si waat fanaan si Dakar yooyu lañu soxla ci développement réew waaye relégué réew euh, euh, vingt troisième pays au les plus pauvres du monde les trois pays où il y a le plus de chômeurs au monde ñaar nga raw Burkina Faso ak dëkk boo xam ne 42 pour cent de la population sont pauvres les ménages sont entretenus pour cent par des retraités ma ne li mbir mi moom moo fajal boppam dafa jeex takk réew mi moom moom euh, askan wi moom réew mi te dinañ ko jëlaat incha allahu te bi yoon moom ay am waaw. jërëjëf. Euh, ñu daal di ko fi yemale di ngeen ci suuf Apalaa di ñu yëgal ne li ñu cërale woon moo jeex xibaaru guddi gi dinañ ko gën rek euh, yaatal jégaluñ ci ñuy desoon ci ligne bi sud éducation lañ koy toftal 18h Aïssatou Gueye Ba xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax Apalaa Dieng mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeektal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.